di wax ne maa ngi leen di nuyu di leen ziare namu naa leen le Thiat le retour. le retour de Thiat. le retour de Thiat waaw. nga war a dajeeg Mame Balla. waaw dajeeg dem ñëw def fulaak fayda def jom rek. waaw loolu ñu mën fi di ñëw remplir suñu contrat tey mooy suñu signature incha allah ñu jàkkaarloo ci jaam ak salaam dugg ci ci salaam génn ci jaam ak salaam violence ba ñu am ñu ñëw ci la paix waaw loolu ñu sant daal incha allah. mais Thiat diggante ak Mame Balla Thiat moo ko dugal ci Mame lamb moom dugal ci Mame waaw ndax bëre moo ñu boole du leneen du lamb waaw moo ñu boole waa waaw mais xëy na euh, am na ci mais li gën a am solo daal mooy caatu yarax mooy bëre moo war a jàkkaarloo ak Mame Balla waaw waaw loolu ci dara làmb moom lamb kese la ndax ku seetaan làmb ji passé dimanche nga xam ne lamb dafa doy war làmb làmb rek lañ ko mën a tuddee daal waaw yaa nañu yàlla may mais lan lañ mën a xaar seen diggante yéen ñaar sa diggante ak Mame waaw lu tàng jër parce que xale bu ndaw lay dajal dara mënul sedd na pare fépp xam ne am na combat du ma seddal benn ruxu fépp laay tàngal ba mu tàng jër caatu yaraax la jël de. caatu yaraax la jël waaw non li problème man ci làmb moo mag bokkuñu sax ba muy bëri maa ngi koy maa ngi jàng école di ko seetaan bu ñu làmb bëree man foogee moom ne làmb nañu boole comme làmb bool nañu nag dama ci def sama fulla ak fayda teg ci sama baxan ñëw bëri moom lu tàng jër incha allah bégal amateur yi wan ko ginnaaw mais caat xam na dayo combat bi ak fu ko combat mën a yóbbu combat bi dañu fa yóbbu ci kàttanu yàlla ndax nekkul moom moo may téye nekkul fi ma jëm ci làmb du Mame Balla moo may arrêté mais dafa mel ni caat dafa xeeb Mame Balla du xeeb de nit ki sa gëm-gëm ngay waxee ci làmb ku ci nekk sa foogu bi nga xam ne moo na ci yow loolu ngay waxee ci làmb moom li mu gëm la indi parce que def na interview dégg nga li mu wax kon man li ma war a wax dama koy wax làmb la waaw mais mën nañoo xaar seen diggante yee ñaar xeex bu metti bu tàng jër am njaay joxal jóg waaw loolu mënu ko bañ Ah. loolu mu neex ko mu naqari ko day xeex day bëri incha allah rabi. pare nga pour xeex ak Mame borom day samp xeex te dina bëri incha allah te luy neex ci lamb ji man maa koy def maay bëre maay xeex maay daan. yaay bëre ci kàttanu yàlla nag. incha allah ngëm-ngëm bi moom laa mos a am ci lamb sama interview ma changer rythme nii la ci discipline nag parce que ñun loolu la ñu jàngal yaraax lañ dëgg ci yar ci teggin loolu rek moo fi nekk. lan nga koy wax moom moom Mame Balla. waaw di ko di wax ne moom na woo supporter mi bu mu bàyyi kenn na ñëpp ñëw man ma ñëw ak sama masse ci kàttanu yàlla yaraax Kër Massar bàyyiwuma kenn Sénégal Casamance bàyyiwuma kenn woo naa ñëpp. mais mais bis bi ngeen di bëree yéen ñaar di bis bu mag bis bi nga xamante ni Bombardier Tapha Tine ñoo ko war a bëre ngeen war cee bëre wane ci seen bopp. waaw boobu sama journée la man yeneen mbëri bàyyiwuma leen xel bésu caatu yaraax ngay wax man maam Balla ñooy bëri dama jàpp ne man maay bëri grand combat. yaay bëri grand combat waaw waaw loolu laa foog man. kon Mame Balla bëtam bësam bëtam ma déggee romb na fi lii nii lii ay Mame Balla ak ñooñ noonu la demee nag incha allah rabbi waaw lay wax waa yaraax li ma wax yaraax mooy rendez-vous le 12 février ci kàttanu yàlla maa ngi invité ñëpp di wax na ñëpp ñëw jàpp ci combat bi ma daan Mame Balla incha allah rabbi ah jaan jëf